question sur euh, Youssou Ndour waaw man xam nga man nag ku ma xam xam ne Queen bis moom dëggu xëy na moo ko yàqal man moom dama dëggoo dëggoo dëggu ba bu fekkee dëgg rek mooy tax boo waxee ñépp saagal wala ñépp bañ la xam naa ne du ma du ma mës a neexle ndax man moom ci laay yëngu ndax bugguma fenit te bugguma wax lu dul dëgg waaye ku ma xamit xam ne bugguma tooñ tooñ moom bugguma ko et ça te lu ma xas ba wax dama leen di rappeler que sama page Facebook ak Instagram sama page ci réseau yi yëpp man personnellement maa koy gérer maa koy bind maa ciy bind lu ci mënti génn te lépp lu ma bind dama koy xam c'est mûrement réfléchi donc lu ma wax bu ma ci dellu ginnaaw et je regrette rien si c'était si à redire dama koy wax te loolu dinañ ci ñëw dina jot tey c'est pas l'objet du du du point de presse lii moom xam naa ni dinañ ci dinañ ko yaatal lii dinañ ko yaatal dinañ ci wax presse bi lii maa leen ko mayaa ah. la question Youssou Ndour dinaa ko yaatal te dinaa ci wax te bu ma waxee xëy na sénégalais di ngeen ma dégg te di ngeen xam fi may waxee moom xam na Youssou Ndour xam na ma avancé ci terrain politique bi ki naan yenn artistes yi ak terrain politique bi est-ce que ça va être facile est-ce que ça va être facile mais artiste artiste dafa war a nekk dafa war a politiqueal dëkkam parce que ñun tey jii artiste bu fi taxaw bay wax di bal balballu ci tamit peuple bii moo la teg fi nga nekk moo lay déglu mooy ñëw say soirée moo lay feccal moo lay defal lu ne yow ngay enrichir peuple boobu du fecc du du lekk du naan mais ñu ni dañu war a bàyyi xel ñooñu yow mënoo di solu tu nekk star di solu di lekk di naan di woy di def lu la neex di voyager on voyage partout ñun amuñu sens interdit ah. ñun on a wax dëgg fa yàlla dañuy dañuy sant yàlla man nee naa ne bu fekkoon combat personnel man du ma tey fii di xeexal réew mi damay dem tëdd di nelaw di voyager def lu ma neex rek mais loolu damay égoïste man te damay nekk complice li fi nekk ndax dafay mel ni dama ànd ci li fi ne artistes yi dama leen di woo ñu ñëw dama leen di wax benn affaire tey xëy na sénégalais yu bëri mosuñu ko xam deux mille vingt euh, deux mille vingt et un mars événement yi amoon. xam nga dañ doon naan artistes yi wax nañu ñi woy ñu ñi mbëggeel la ñuy woy ñëpp dañu kii dama leen benn anecdote tey ngeen xam ko tey fii laa ko njëkk dama duggoon studio waaye nag li ma gars yi doon wax ci coupe d'Afrique bi xëy na nag Queen xëy na dafa ànd ak làmmiñ gi daa ànd ak barke man dama woy ba ni may jeexalee laay jaan studio LSD record mi ngi may seede waaye ak lu brik xam nañ li may wax damaa woy ba ni may jeexalee benn femme dugg si woo bàyyi dañ Ousmane Sonko bàyyi dañ Ousmane ko ma ne laa jaañ tëjal son bi dencal gis ngeen son boobu bu génnoon tey jii maa ngi xam naa nungu si tëdd kii <laughs> maa ngi ci <laughs> prison yi tëdd maa ngi rëb waa rëbës la xaw ma waaw campé naa maa ngi fa tëdd ndax tellement que man li ma ci doon wax benn artiste ñemewu ko woon wax dama doon woy ñu naan i Queen yaay wax lii ma ne non il faut que ñu wax sur le Saint Coran damaa woy ba ni may daanelee rek ñu ne bàyyi nañ ko ma ne ko non nañ tëj nañu denc lii amatul sens parce que di taxoon askan wi génnoon peuple bi génnoon dëkk bi nekkoon dans le kaw artistes yi ñu amoon na sax artistes yu jóg ndeysaan ku ne di wax mais man sama bos moom moo naroon nekk laas tey nag ma wax leen ko yéen presse bi xëy na kenn mësu ko xam gis naa sax ñuy dugg sama paaj naa ne Queen da nga noppi waxoo waxoo ma ne leen ay lig bu ngeen xamoon li ma xam man de su ma waxoon réew mi toj yàlla xëy na dafa xamoon ni sama son boobu bu génnoon réew mi yëngu mu ne xaaral rek ma seddal <laughs> di wax ne artistes yi nga la ñu ngi leen di woowaat ngeen ñëw jàppale le peuple le peuple a besoin de vous le peuple a besoin de nous dañ ñu soxla instant bii réew mi dafa metti ah añatuñu reer wala bu ñu añee duñu reer les gens sont fatigués man de tey taxaw naa nag man moom damaa décidé damaa décidé damaa décidé ànd ak le peuple fu mu yem neex la troisième question ki ma naan ne que est xalaatoo ñu faagagal la waaye waay waay ragal du jéggi raay man du ma ragal man ragaluma suñu famille dan ma naan suñu ko dan ma naan yow yàlla dafa def fitu góor xaw ma dara ci yow man wax dëgg fa yàlla man ku ma xam-xam ne du ma ragal te ragal yëpp yàlla la yàlla rek laa ragal waaye ragul ma mbindeef man ci kaw suuf engagement bi dama ciy dem ba jeex lum lum ñu may ñu jël te damay sant yàlla mu may ñu ay ndaw y ñu gën a dee Queen bis MJR laa leen di wax de panel ba je vous invite ngeen ñëw ngeen duggee MJR di ngeen xam ne MJR dafa am ay jeunes yu déterminé macha allah yàlla dafa def dama nekk di liggéey ci sama album ndax léegi mu génn du may sax am jot parfois parce que booy cumuler ñaar day metti mais fu ma tëdd sama xel day dal waa MJR ñi ngi gérer mouvement bi comme il se doit lu ma bëgg lu may lu may xalaat sax ñoom xam nañ ko ba pare. donc dama leen di sant ñoom it di leen wax ne rek euh, ni aussi troisième question bi ki naan mouvement citoyen et politique lan moo ci kii bi ndax ñaar yëpp la ñuy def wala benn bi damay damay def benn précision que ni ñun aussi un euh, mouvement de jeunes la ñu ngi am benn engagement politique waaye citoyenneté bi aussi moo ci jiitu te ñaar yëpp ils vont de pair donc euh, dina am ay activités yu bëri yi nga xam ne dina démarrer di ngeen ko gis. li ngeen gis ne que MJR c'est un mouvement qui existe incha allah parce que de par nos act de par nos activités ak doxalin bu ñu nar a jël ak ndaw yi ñu àndal détermination gi ñu àndal dinañ boole ñaar yëpp waaye nu te duñu ragal benn yoon.